dama leen di jaajëfalaat bu baax di am contentement di jënd ak yéen chaque jour yéen internet Leewtoo TV tey jii 5 juin 5 juin ñu ngi terrain gaal kan moo woote Soulay Sagne borom Sagne production lan daal di woote. lutte simple terrain gaal daal fi teg li nga xam ne mooy mise 2 millions 500 bilaa sama caméraman moo maane sama chauffeur ak nga ne mooy Fama. sama photographe laa ànd ak kon dañuy daal dugg rek xool lu fi nekk ci ambiance ci bëre daal di leen koy wana ah, mañ mañ sama caméraman dama koy nuyu bu baax a ñëwul bilaa la ñëw bilaa la ñuy dugg rek. ñoo xool ambiance bi salaamaaleykum nee naa la nuyu na leen def. ñu ngi sant bu baax soxna si. organisation bi organisation macha allah laf cat macha allah kontaan nañ bu baax a baax a baax ñu ngi farlu ci liggéey bi ñu ngi koy liggéey bu baax a baax a baax vraiment. mafanam haɓe so horma ma juuloɓe sogol Thank you.

na ba Maro mu daal di teg mooy mise bu 2 millions fii ci terrain gaal gi Souley Sène dafa jël bis bi daal di koy tuddee xaritam mun naa ne àndandoo magam léppam moitié am di tabaski dañ koy nuyu rek laaj ko ban relation la am ak ki nga xam ne mooy Souley ba mu daal di koy tuddee bis bu rëy bii salaamaaleykum tabaski maa ngi lay nuyu. waaw tabaski ñaax maa ngi lay wuyu maa ngi lay tamit di la nuyu aussi. jóge fan. ah mu jóge. fu ma. mu jóge. Grand waaw. Souley Sène la aussi. lay tuddee bis bi ba relation ngeen am yéen ñaar. waaw Souley dafa nekk doomu Djilass ma nekk doomu Djilass aussi man maay euh, président du mouvement développement Djilass aussi Djilass ñor ma aussi xam naa loolu loolu la Souley gis Souley aussi sama xaal sama euh, doomu baay la euh, nu mu tudd sama doomu baajal la sama frère la aussi ñu bokk liggéey bi aussi mu nekk booy bu bëgg dëkkam booy bu bëgg Djilass booy bu bëgg jeunesse bi aussi moo tax ñu am courage. am cofeel aussi pour jàppale ko ci bés bi waaw. Ah. nga nekk euh, président Djilass yan activité ngay def pour jàppale xale Djilass. président du mouvement développement Djilass. activité ngeen nekk def pour jàppale jeune yi Djilass. Ah. nekk pour jàppale jeune yi Djilass. jóg rek ngir changer Djilass jóg rek ngir changer Djilass jóg pour aussi lépp loo xam ne Djilass ñàkkoon na ko ñu taxaw ti pour Djilass am ko bépp tur bu ñu gis aussi Djilass am ko ñu taxaw aussi pour fàtte ko. taxaw xale yi taxaw mag yi taxaw suñu bopp loolu kese ñu tax a jóg looloo waral mu mouvement pour le développement de Djilass comme son nom l'indique waaw. nga dugg si làmb ñu gis ne accueil accueil bu bu bu charmant bu neex naka nga gisee ambiance làmb ji. kontaan rek kontaan rek ndax mun naa ne 100 pour cent Djilass la ndax gis nga Kafal mu tambour major vraiment aussi la voix d'or Mbayang Loum ñaar ñooñu boo leen boole ci géew aussi fu mu jaar mu neex. aussi rawatina aussi di gërëm nit ñi aussi di leen sant parce que xaw ma lan laa defal nit ñi aussi comme ni ko waxee yaa ko gisal sa bopp nit ñi accueillir vraiment di am mbégte bu baax a baax a baax a baax kontaan trop ci bés bi aussi di leen gën a ñaanal yàlla rek yàlla mi nga xam ne moom moom lépp musul musal ñu saytaan yi te yokk ku nekk daal vraiment ci li ngay yëngu yàlla yokk say garaat waaw. tey lan ngay wax euh, Souleye Sagne. ah lay wax Souleye Sagne. Souleye mu gën a góorgóorlu rek mu gën a góorgóorlu l'avenir est devant waaw gën góor góorgóorlu ñu toog ba vraiment di am ay combat dem ba arène nationale aussi loolu daal mooy suñu vision man sama jëm bopp man maay loolu loolu mooy sama vision te loolu laa koy ñaanal yàlla te xam naa foofu la jëm incha allah waaw. mu ngi noonu du ñëw ba terrain gaal gi Bilal te duñu wax ak borom ba boor gi ci woote di Souleye Sagne dañ koy nuyu rek bàyyi ko mu présenté wu Souleye ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen di fay euh, di leen gërëm di leen sant aw ma seen fay. Eh, coono bi métti na trop mais maa leen di sant di leen gërëm bu ma jógee ci loolu maa ngi sant euh, mbokku teere gaal gi yëpp ak sama mbokk sama sama waa dëkk maa ngi gërëm sama yaay ak sama pap maa leen di gërëm bu baax baax baax maa leen di gërëm su ma waxee sa dinaa jooy aw ma seen fay sama pap ak sama yaay di gërëm kii nga xam ne mooy Senghane Ndong su may teg laam kii moo tax kii mooy sama lépp. lépp lu may mën a def moom mii moom moo moo ci taxaw mais maa ngi gërëm ñëpp di sant ñi ci ñi ci teew yëpp maa leen di gërëm di leen sant. bu ñu xamul su sañ tey nga dugg ci lu simple. non yàgg naa ci lu simple bi yàgg naa ci euh, adressé naa fa deux journées mais jilaas laa gënoon di tëgg jilaas laa fa jilaas def naa fa sept journées sept euh, sept ans yoo xam ne maa ngi jilaas di fa tëgg mais li yàlla def rek xam nga rek xale màgg na ñu gën ko di ko pousse muy gën a jëm ci nii lañ ko def bu ñuy doog a ñëw Dakar nii la demee woon dañoo ñëwaat deuxième fois mu changé kon yàlla nii la nii la nii la nii la ñu ko bëggee eh, ñu ngi ciy gërëm yàlla di ko sant di ko gërëm bu baax a a baax waaw. ñaata yoon nga tëgg gaal gi. ñaata. ñaata yoon nga tëgg bii mooy sama première fois sama premier jour bi xam ne damay so euh, ko organisé gaal gi dafa naqaree organisé dafa métti depuis démb ñoo ngi fii organisation métti na mais yàlla ak amateurs yi euh, ñoo nañ jàpp ci ci combat bi. mais lépp rafet na actuellement kontaan naa trop trop si ñoom aw ma seen fay. waaw di gërëm sama mag bu baax ab Abdou Sañ lamb ji taxaw bu taxawee te yàlla moom moo tax mu taxaw di ko gërëm bu baax a baax aw ma si fayam bàyyi naa ko lépp ak sama yaay ak sama papa. à part lu simple est-ce que Souleye na pour déglu avec frappe. waaw loolu fa lañ teg suñu tànk fa lañ teg suñu tànk mais problème bi mooy ñun ay xale lañ dañuy ñaan ku liñ mën a jàppale maa ngi gërëm Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye maa ngi koy gërëm bu baax. Kador. waaw kooku man dama ko bëgg te yàlla tax maa ngi koy gërëm bu baax message am jot naa ko mais maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax Aziz Ndiaye dama ko bëgg mais jot naa message am mais gërëm naa ko sant naa ko. ñu mën a xaar Souleye ci ban journée yan combat ngay mbëbët pour dëgg ko. yan yan ko. non combat yi li ma ci bëgg bëgg naa ci bëgg yu bari nañ mais il faut ñu nga ñi xam ne ñoo jiitu ci làmb ji ñu jàppale ñu ci combat yi mais ñun bëgg nañoo dépasser fii liste simple liste simple bi ndax liste simple bi métti na métti booy xam ne da ngay da ngay financer xaalis lépp teg doo gis dërëm mais bu dee liste en sans farab bi foofu mën ngaa gis sa xaalis muy dugg ci ngay teg làmb ji mais fii nii sa xaalis ngay dem CNG versé doo gis dërëm dërëm du ñëw amul kenn ku jàppale ci làmb ji moo tax ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci loolu bu baax a baax a baax. merci kii rek laay gërëm aw ma fayam Sengal Ndong lépp loo xam ne mën naa ko def ci làmb rek. daaneel la mooy waaj a bëre Doudou Sané mooy waaj a noonu troisième combat am ci soirée <laughs> arbitre bi sifflé na diggante Doudou Sané ak Amadou Diop Doudou Sané Amadou Diop dàqati na ko <laughs> eh Doudou Sané door a jàppale lool macha allah Doudou Sané Amadou Diop. Doudou Sané na tànk ba waaye mënut a ne Doudou Sané jàpp na ko laa ilaaha ko door ko suuf door doxul jàmm lam la wax rek rendi rendee ginnaaw ñoom ñëpp ay Doudou Sané. Eh, doo doxul jàmm final diggante Georges Brahim Mamadé Serigne Ndiaye numéro 2 ak Georges Serigne Ndiaye Georges ko wéy na ak de rëpp na jugaat na de plaqué ko dina ñaari tànk ya de raam na la ilaha illallah ñu ngay bëre public bi kontaan na Serigne de ak Georges Serigne de takk na ko takk na ko takk na ko fu ñuy mujj mbot ba Serigne Ndiaye de Georges Georges jox na quatre appuis daa mel ni Serigne Ndiaye de dal na Georges Georges daa def quatre de dal na poids di diggante ki nga mooy Serigne Ndiaye numéro 2 ak volcan di Ousmane. abbi bi sifflé na jël na tànk ba Serigne Ndiaye waaw vite fait bien fait Serigne Ndiaye 2 Ousmane lii ko xef ko gis ana xef nee na Doudou Sané ngay gaaw ñooy janoo cay tëqonte ba daa mel ne final dafa xaw de Bilal Bilal daa mel ne final dafa xaw a leer Monsieur ba léegi nag demi-finale lourd yi lañuy desandi Bilal kay bëri na Doudou saane la ak Boy Djiné at bi bu sifflé na diggante Doudou ak Boy ndax Boy Djiné dina jommal Doudou saane am déet reste Doudou Sané Boy Djiné Doudou Sané Boy Djiné Doudou Sané saane Djiné Doudou Sané Boy Djiné Doudou tànk ba xale ba daw rasu dellu ginnaaw mu topp ko ñu ngay damante baaraam Doudou Sané Boy Djiné du Sané Boy Djiné Doudou Sané mel bu tëbee ci biir dina ko desem xal ndax Serigne Ndiaye dëgg na ko gaawal ñu janoo <laughs> cey boobu final. Doudou Sané Boy Djiné du yëkkati doo ba ci kaw door ci suuf doo doxul jàmm dafa leer c'est évident bila final ba leer na. lu waay doon jaay lu ne dana lamb léegi léegi <laughs> bakkan ba tey des dégg nga Serigne Ndiaye na woo ko Doudou Sané daan na ko ca yàlla ba mu final. dafa mel ni li final poids léger bi la diggante Abdou Aziz Diop.

naan lese ba Abdou Aziz Diop ak na ko mu rëpp daal di jugaat topp na ko topp na ko cay final ba Aziz Diop Abdoulaye ñaar laa moo fi am sama ginnaaw ñaar cubukaay yee denc cubukaayu Serigne Ndiaye 2 ak cubukaay ki nga xam ne mooy du Sané <laughs> mais tàng na jër macha allah fii ngi neex la ilaha illallah quelle belle chute quelle belle chute du final en poids léger arbitre bi lu mu wax arbitre bi lu mu wax nee nañ bëriwaat lu xew kenn xamu ko. <laughs> arbitre bi moom rek ko xam Abdou Aziz Diop Abdoulaye Ndong Yeah.

Sénégal tey boobu final diggante Mamadou Lamine Sané ak Moussa Diop di Serigne Ndiaye numéro 2 Mamadou Lamine Sané du di Doudou Sané abi yaa ngi di xool ku ci nekk ndax niin nga wala niinoo waaye Bilal li ma gis ci final <laughs> yomb de da ku ci nekk naa xiif sa morom Serigne Ndiaye daa daan ah, demi final ne ko gaawal Doudou Sané yow laay xaar Doudou Sané daan ne ko pare naa ñëwal ñu teg suñu bakkan mu ngi noonu Doudou Sané ba <laughs> Doudou Sané Serigne Ndiaye en finale lourd nga woote di Souleye Sagne daañu fii terrain gaal gi. arbitre baa ngay wax ak ñoom. ku ci nekk ne tekk di xool arbitre ba. ma nga 21 heures 58 minutes Dourou Sané Serigne Ndiaye 2 jëm na ko paru taxul song na ko Serigne Ndiaye jël na tànk ba lay la la Dourou Sané Serigne Ndiaye 2 lay jël na tànk ba mbot na ko ñu suuf ñu ngi suuf lu xew ñu ngi suuf oh Serigne Ndiaye 2 daan na Dourou Sané Serigne Ndiaye numéro 2 daan na Dourou vite fait bien fait Bilal Serigne Ndiaye de dal daan Doudou Sané mu ngi noonu ah, comme ni nga gisee internet yi terrain woon ak nga xam ne mooy Soulay Sagne production daal fi teg mise 2 millions 500 gis ngeen tournoi bi ni mu demee ambiance am na fi Mbayang Loum moo Kafal Fall moo fa tëgg lañ tëgg lu neex ah mu paranee ko nga xam ne mooy tabaski ki jël raw gaar gi nag moo Serigne Ndiaye 2 moo daal di daan Doudou Sané jël bu amul benn werante vite fait bien fait mu daal di koy daan ni lañu def Leewtoo TV fu lamb nekk rek incha allah ñu daal di leen ko indil trio bi la du mën a ñàkk day Mbacke Diop ba moom maa ne Bilal kontaan ci moom lool lool lool Fama sama caméra woman bi di bég ci moom noonu laa dee joxante daje ëllëg ci Leewtoo TV ak beneen événement ak beneen mbër beneen champion incha allah jàmm jàmm mu noonu ah comme ni nga gisee internet yi terrain gaal la woon ak ke xam ne mooy Souleye Sagne production daal di fi teg mise de 2 millions cent gis ngeen tournoi bi demee ambiance am na fi Mbayang Loum moo doon woy Kafar moo ko tëgg lañ tëgg lu neex ah mu pare nekkul nga xam ne mooy tabaski ki nga raw gaar gi nag mooy Serigne Ndiaye 2 moo daal di daan Doudou Sané jël bu amul benn werante vite fait bien fait mu daal koy daan ni la ñuy def Leewtoo TV fu lamb nekk rek incha allah ñu daal di ko indil. trio bi nag du mën a ñàkk day Mbacke Diop bu mu maane Bilal kontaan ci moom lool lool lool Fama sama caméra woman bi di bég ci moom noonu la dee joxante daje ëllëg ci Leewtoo TV ak beneen événement ak beneen mbër beneen champion incha allah jàmm jàmm